Bienvenue sur Salam Vision. يا جبل مونة يا جبل مونة salaamaaleykum ñoom ñu bëgg borom Touba. mbay ba la maa ngi lay sàmbat dégg la woon nga ko lii maa yomb. góor gi sant Mbacke sant Mbacke ana soxna Sëriñ Touba sëñ Saliou la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gottal leen Cheikh Seydi Hadji Malick dafa wax ne fa madxul Mustafa fawzun wa xunbun fa maa xarajun alayya min alxadim mu ne fa madxul Mustafa takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fawzun moo tax mag ñëpp dawoon jiiroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii ne maay xaadimu rasul kii ne maay lii kii ne maay laa ñoom mag ñi dañoo liroon yonent bi def ko nag di ko taw taw ndax xamoon nañ ne mooy buy jub loolu la seen xaaj di wax li ñuy naana maa naana rijaalu foofu mooy buntu bi nga xam ne ku fa jaaroo doo gis yàlla doo yegg ci yàlla kon yonent bi mooy buntu wa anta baabullaahi ayyu mri'in aataahu min xayrika laa yamusul si de xarit maa ngi wax ne fa madxul Moustapha faw dexe la ñu ne ko ndax dexe rek la mu ne woo xul ak kooku mooy tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo da ngay am wërsëg doo ñàkk xaalis da ngay mën a sañ-sañ comme Basiru ci dañ lay bëgg sa kanam dafay leer day ubbi wërsëg gis nga seen xaajaat bi moom bu feebaraan sax danaan wax Abdou Mbaye ne ko kaay tagg yonent seen xaajaat bu feebaraan danaan wax Abdou Mbaye ne ko kaay tagg yonent ñu ne ko ndax la mu ne aali tuub heusal ma di di zikri yi wa bi da xayru tabiib tagg yonent bi sallallahu alayhi mooy gën ci docteur te aajib bi gëzal mari mooy génnee sama feebar docteur bi doon faj bi muy génn at nee na mu jub dundu xool naa ba sonn xool alaaji at bi nekk mais gisatuma fu mu nekk dafa mel dafa seey yaram ndax lan ni xol seeyee woon ci moom yooyu jëli sallallahu alayhi wa sallam ba ñëpp nag loolu lañ ci def ba ñëpp boo demee ci Cheikh Ahmadou Bamba mu ngay wax ci xasidaam bii muy am bu seetlu boobu loolu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga yëkkati sa dërëm da ngaa mel ni ku teewoon xare Badar xaswatu nga xam ne ci weeru koor ndaw yu bëri ci xaswatu Badar la ñu daal fukki jàmbaar ak ñeent ci Badar lañ daal ñett ñu bokk benn baay ci Badar lañ daal Ubaydatu ibnu Xaaris ci Badar la daal Awf Badar la daal Yasiid Badar la مرجف ابن سعد عمير ابن سعد عمير ابن حرام يب يب دام رجل دام سيخ أحمد بابا نيل بوي بوي سيدر مري ديكو يباسي في فيه تكي نمت فإنه كما تقدر dafa mel ni ko teew yow ma xolay xare xolay da nga teew wala boog wa yow ma bëri da ngaa teewal ba dara xayrul wala bu fa ceeba ñoom jël nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon fa tabaarakallahu loolu dañ ko doon ubbee rek ngir ndokkeel leen ndax isa dofi al maaruf jaasal manzil loolu la arab yoo si mën suuf ne lépp ñu ko defal karaanga rek mu toog toog yoore wax ne maa ko yeyoo mais dé kon fa tabaarakallahu sëriñ bi ñu ngi ziar bu baax di bëggee di ziyaara kilifa yi nga xam ne ñoom la ñu fa fekk yëpp di leen wàccee seen wàccuwaay di ziyaara suñu mbokki jigéen ñi nga xam ne suñ mbofaa bi wax na ko sax jigéen ju baax waaye dama ne jigéen ju bon sax jar na ay milliards waxuma la ak jigéen ju baax ndax ki njëkk a tuur bakkanam ci lislaam jigéen te garaat ku nit ko sa takk day góor jigéen tënk na alquran moo ñu ko wax innal muslimina wal muslimat ah wal muminina wal muminat wal xaafisina wal xaafisat was saalixina was saalihaat ba ba màtt ba yëpp jeex même bët baa ñu nekk na Ousmane sax jigéen mës na ko takk mooy Seydatuna Fatima nga xam ne jigéen du ko takk moom li taxoon mu takk ko mooy daal gis rek ngant bii dal ci biir moom daanu ko dox moo tax moom rek ci jigéen moom mos a fas garaat bu bu xot baa ñëw ko mos waaye boo leen beneen garaat góor yàlla di takk rek jigéen takk na kon fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom di leen siyaar di nuyu ki nga xam ne moom la ñu àndal mooy Serigne Mouhamad Ndiaye sopp nabi moom noonu la tàkkal comme ni ñu ko waxee comme yooyu moom dañ koy jiiru kenn ku ci nekk ak la nga mën a am nga jëm bu ko defee moom moom moom kàddu gi tey ñun ñëpp moom la ñuy dund waaye sànq bii doon waxtaan dafa waxtaan wax wax am solo te wax yëpp génnul ñaar mooy islam gi nga xam ne moom lañ ñu ëllëg ak ki nga xam ne moo ko ëllëg moom mii waxtaanee na lislaam gi ñu ëndi ki ñu ko ëndil nag Mouhamad Ndiaye mii soog soog moom lay waxtaanee ki ñu ko ëndil li ñu ëndil nag mooy lislaam ñaari objectif rek moo ko fi tax a jóg moo moom lañ ko fi ëndee lislaam suñ la laajoon lislaam lan lay dox neen ñaari objectif rek lay dox bu njëkk di bakka sa baara mooy li ñuy wax la purification des âmes par la connaissance de Dieu maanaam naka la ñuy tàggatee ruux yi ak jëmm yi ba jébbal ko yàlla maanaam ñu xam li ñu fi indi ndax jaamu yàlla moo ñu fi indi wala fa moo ñu fi indi fexe ba sellal sunu jëmm yi ak sunu ruux yi jëmale ko ci yàlla nee na lislaam benn objectif boobu rek la am mooy une objectif bu njëkk suñu diggante ak yàlla fexe ba suñu diggante ak yàlla rafet ni ma koy waxee Ndiaye man sama digganteeg yàlla rafet na xam naa ne rafet na sama digganteeg yàlla rafet na xam naa ne rafet na ñaaw na lool waaye nag maa maa ngi ñaan yàlla comprendre kon bu njëkk bi mooy fexe ba suñu diggante ak yàlla rafet mooy la purification des âmes par la connaissance de Dieu ñu fexe ba xam yàlla benn objectif rek moo ci def laaj ba mooy ba mooy li ñu wooyee le renforcement des liens humains. maanaam ñu ni neex ñu ni neex gannaaw suñu diggante ak yàlla li fi des mooy ñu ni neex ñu ni neex nag lépp na tëm tëm tëm compassion li ñuy wax am loxo si yàpp fexe ba kenn ku ci nekk am ñeewal ko ci sa morom fraternité kenn ku ci nekk koo gis def ko ni sa bopp ya'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu kenn koo gis rek def ko ni sa bopp mooy fraternité égalité fexe ba tollale mbokk yi buñ tollale woon kon Sénégal dara du fi métti buñ tollale woon kon Sénégal kenn du fi xiif buñ tollale woon Sénégal kenn du fi mar li yàlla defal Koweït ba Koweït mel na mu mel li yàlla defal Dubaï ba Dubaï mel na mu mel li yàlla defal Qatar ba Qatar mel na mu mel yàlla defal na ko Sénégal lan moo tax meluñu ko loolu mooy wax lan lañ ñàkk Sénégal amuñu def amuñu géej amuñu or amuñu jabar amuñu zircon amuñu jën yu doy waaw lu tax ñu doon lekk jën. est-ce que xam ngeen ne fii ak ñaari at baadoo la bi nga xam ne moo daan lekk yabu sax doom bi fi lekk yabu ñun moom damaa defe ni ñun moom ñun moom ñun nit ñun ñuul moom damaa xamul lan lañ def yàlla ñun li ñu li ñu rawee ci gore ak tolloo waaye buñ nee Sénégal yëpp ñu ne li fiy dund matuñu ñaar téeméeri nit ñi des yëpp ci coono la ñu am na politicien bu ma déggoon muy wax ne buñ jëloon avion dugal ci deux cent vingt personnes yéen yéen avion bi naan ba jub assurance trafic bi ñu ko wax ko mu daanu Sénégal jar ma ne wax na dëgg de waaye damaa toog ñetti fan ñetti fan gis ñu ne transhumé ma ne xanaa kon moom léegi dina dina dugal dugalaale ko ci biir avion kon nga gis ne bu ñu bu ñu bu ñu tënk woon ci lislaam nga wax mu wax ci égalité kon ñun ñëpp daañu dund ci xayaatan tayiban yóbbu ko tey waaye bi ci des baax la mooy justice ñu teg lépp ci yoon fu yoon amul jàmm du fa am fu yoon amul sutura du fa am fu yoon amul teraanga du fa am. kon loolu mooy li nga xam ne moom la sëñ bii doon waxtaane mooy lislaam mooy mooy mooy mooy li ñu andi pour ñu dundee yii nag ku ci dundul ku ne di nga dund ci yi chaton bay yaxal maanaam dund ko xam koy dund ko xam rek yii boo ko fi bàyyee ci dund ko xam rek koy kon lislaam dañu yàlla daf ñu ko andil pour ñu defal pour ñu dund dund ko neex ñu dund dund ko neex dund dund ko teey dund dund ko ku am bakkan waaye ba ko fi bàyyi ci la ñu ci ay problème rek ci ay problème la ñu nekk ak i jafe-jafe ba wuyu ñu suñu borom kon yàlla nañu yàlla dimbale taxawuñu te barkeelal ñu lii xale yi nga xam ne ñoom ñoo sos lii muy initiative bu am solo islam ay ndaw rek ko moom daal ko ba mu taxaw ba mu yegg si fi mu yegg kon ñu ngi leen ci encouragé te di leen ñaanal yàlla olof day wax ne ah, ah, ah olof day wax ne ah, àll mënta nawee may ñu ne ah kay àll mën naa nawee may ndax bëri na àll bu ne yàlla te amul man kon nit bu defee njëkk ak teraanga yoon nañu sant ko di gërëm ko kon xale yi ñu leen di ñaanal yàlla di leen sant te di leen gërëm lii nag dañu ko doon jiitalee rek ci kilifa ki nga xam ne moo wax doon wax daan bii am solo yi ñu ko sant di ko gërëm ci taaw ak xam-xamam ndax nit la mu la mu gënee ma la mooy xam-xam te wax la ko sax nga di jàng xuus na bu baax a baax ci jàng ci xam. nit la mu gënee malaayika xam kese la de du leneen ndax malaayika yi bi leen yàlla woowee waxtaan ñoom waxtaan yi dañ koo tax kéesante malaayika yi yàlla a leen woo waxtaan ñoom ñu daaj ko kéesante mu ne leen dama bëgg jël ku ñuy wax doomu aadama def ko xalifa ci kaw suuf malaayika yi au lieu que waxtaan ak moom yow lan ngay jëlee koo xam ne yëf si lu dafay yàq wa yëf si ko débat maanaam day yàq univers bi nga koy yóbbu non seulement du yàq univers bi nga koy yóbbu waaye dana dana yàqaale ñu dëkkee univers bi. malaayika yi défier ya ba pare jël ñaari li ñuy wax chef d'équipage jël ñaari chef d'équipage taxaw ko doomu aadama ba pare dox seen bopp ñoom ñaari garab lan mooy tayu malaayika yi wax ne kii yufsidu wa yufsidu dimaa ba ba pare nag yamuñu daal ne ñun yàlla de ñun malaayika yi ñun boo ñu yóbboo ñun ñun ñun lu sab dexu ñun wàllu xat gisu ñun dañuy sàmbaar ba pare dañuy def taq diis dinañ la dinañ sàmbaar dinañ màggal kon malaayika yi dox nañu ñaari tuuma ba pare takkal seen bopp ñaari garab waaye yàlla moom bu bëggee jeexal taw bi dafa ne rek inni a'lamu maa laa ta'lamuun bi mu bëggee taw li jeex dafa ne wa 'allama al-aadama al-asmaa xamal naa nit lu ngeen ko xamul loxol defal naa ko daf xamal naa ki ma fay yóbbu xamal naa ko lu ma leen kon loolu la su dafa am aadama rawee malaaka ba loola jeexee nag mu ne leen acca kon robin kon li nit di gënee nit mooy xam-xam ku ànd ak jëfe loolu la nit di gënee malaayika loolu la nit di gënee yàlla bi loolu la boo ci nekk jàngoo sa diine toppatoo boobu foog na nga xam ne ni ñuy wooyee saafiliin pour que saafiliin ay les animaux dana xam ne ñooñu sax ñoo la ëpp jël ci suuf kenn ko nekk nag war ngaa bañ loolu kon fa tabaaraka Allaahu loolu dañ ko doon ubbee rek kon ay daay la kilifa gi nga xam ne moo doon waxtaan di ñaan yàlla lépp lu ñu fi jaamu yàlla te dépassé ko ci suñu am-am ak suñu mën-mën suñu tànk ak suñu doole ak suñu kàttan yàlla bu ko yàlla nuyoo ci barke bi sallallahu alayhi wa sallam wa aaxiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin ba tey depuis sept heures ñu ngi si installation yëpp su ma jugee si jàpp joxe damay nuyu li nga xamante ni jàpp joxe moo ko jur muy Gallas business bi nga xamante ni tey logistique bu fi nekk yëpp mën na ni ñoom la di ko jiite di góor bi nga xamante moo nekk ne góor a taal muy suñu kilifa di nuyu suñu beneen kilifa nga xamante ni si stage yi la bokk stage jàpp joxe yi si conseil lépp muy sëñ Mouhamed sëñ Mouhamed Diagne ci stage yi ba tey may nuyu Serigne Mbacke Gueye maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Ndiambe Mbodj mi nga xamante ne ci saa yi la bokk mu jóg Diagne ci sunu mag maa ngi nuyu ñëpp su ma liwee damay nuyu monsieur Ndiaye Mouhamed ci libaas ñëpp maa ngi jigéen ñi aussi depuis soo ba tey ñi ngi fi ak di nuyu sunu yaay yi nga xamante ñi dem ak ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi toog teewlu ba tey parce que tey dañoo kontaan ci ñaari facette muy li nga xamante ne def nañ ko muy benn liñ ci jublu mooy jaamu yàlla ndax conférence bi jeexee dañuy joxe ay ndogu kaddu di jaamu yàlla baa ngi noonu di dooli sant yàlla bu baax samay kaddu nag du gudd dañuy nuyu. balaa may ñëw si président Moustapha Kane di nuyu délégation bi mu àndal ñu ngi nuyu Pape Mass Gueye bu mu nee yëkkati loo Pape Mass Gueye ñu ngi lay nuyu Koumba Mbow ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Oumar Diaw Seyna Oumar ñu ngi lay siyaare bu wér Nestor Manga ñu ngi lay siyaare bu wér Bamba moom a baax a baax Ibou Ba sunu jëw di ñu ngi lay siyaare bu wér kilifa gi bu nuyoo ñooñu damay nuyu tamit di jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy waykat yi di leen wax ñoom tamit jàpp joxe lañ bokk kon cocktail la rek ñoom ñi ñëpp jàpp joxe lañ bokk di nuyu sëñ Adama Oustaz Mafali monsieur Diop Mouhamed Ndiaye ñoom ñëpp ay éléments jàpp joxe lañ si biir lañ bokk ndax jàpp joxe dafa généralisé li ñu naan nag ragal féete day day xañ a wërsëg yàlla dafa def ni bu ñu xasee du ñu teggi li may wax chaque jour suñuy réunion man leen ciment lañ yoon la ñuy tooy depuis deux ans ñi ngi ànd ak euh, mi nga xamante ni li ñu bëgg na ma ko mooy teg ko ci boppu passé assuré bii nii ñu nekk te incha allah rabbi dina am incha allahu rabi dina am di la wax rek Moustapha je pense ni intercept boor bi ñu ngi lay doog a découvrir ñu ciy am contentement bu wér wér wér wér parce que Parcelles en marche dafa loo xamante ni lu rëy la ñun xam nañ ci dara def biñ ci bokkee ñu ngi lay sant di la gërëm parce que xeebo li ma gën a neex Moustapha mooy dafa bokk tax moom dañ ko jàpp du tayee ñu mos a ñëw suñu événement ñëwoon na suñu événement conférence doon def lutte contre la drogue ñëwoon na tey aussi ñëw na kon nit bu la xeebalul sa bés rek xamal ni kooku fonk na la te loo ñu fonk fu benn fonk nañ la ko fukk te lu ñu joxe bopp roo ci lu ñu joxe bopp roo ci mooy ñun ndaw ñi bu ñu duggee lu ñu leer ba leer ba leer mooy suñu kilifa yi du ñu des parce que bu ñu lakkee ñun ñoom ñu yuuxoo amul kenn ku ñu xamul Moustapha Kane ñun ñi ñëpp amul kenn ku ñu xamul Moustapha Kane te ñun ñooy dem kon nga xam ne ñun bu ñu duggee ñoom dem nañu ba jeex di gën a fendali kóllëre comme ni ma la koy waxee chaque jour di la xamal ni jàpp joxe jox na la bopp te incha allahu rabi lu ñu jàpp dinañ ko doole si marché en marche incha allah yàlla defal ñu ndam. jox la kàddu gi sëñ Mouhamed daa ñuy wéy. kenn ku ci nekk maa ngi bi den balu àq bu baax a baax a baax den balu àq di ñaan yàlla nag mu nekk suñuy mujjantul jotaay ci barke Seydina Mouhamed lu ñu fi wax ci lu baax ak lu ñu fi tagg Seydina Mouhamed yàlla ko yàlla nangu tasaare ko ci àddina bi yépp ci barke Muhammad Rasulullah waaye nag yàlla ko ci kenn ëppale président Moustapha Kane Cheikh Moustapha ñoo ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm ndaxte nag président Moustapha Kane ñàkk laa xam wóorul ndax leader boo xamante ni sii dawul kenn daa xam loolu kenn lu mu am yéene na ko parcelle lu mu am yéene na ko àdduna surtout parcelle en masse président Moustapha Kane mu nga ca nawu jàkka ya mu nga ca nawu gàmmo ya mu nga ca xal tabaski ya mu nga ca suukaru koor ya mu nga ca computer ba tabarkaala mu nga ca soble sax enveloppe bu président Moustapha Kane yaakaar naa ne wër na réew mi kon Cheikh Moustapha dañ lay li nga yóbbu ci parcelle nga teg sa loxo ci barke Seydina Mouhamed Rasulullah ñu tudd ak jàmm nag bi te mu seet bu yu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu kilifa yi nga xam ne moom la ñu fekk si fii tey muy comité d' di leen nuyu moo xam góor moo xam jigéen di nuyu suñu waajur yi nga xam ne tamit moom la fekk di leen sargal parce que weer bi defe naa ni weer weer weer gënu koo màgg donc je pense que tey bu ñu fi dajaloo wala ñu fi dajalee donc te di fi wax mbirum Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam je pense que defe naa ni dañuy def lu dul rafetlu jotaay di rafetlu jotaay bi parce que jotaay bi dafa am caractère yu bëri bëri bu ko jiitu mooy li nga xam ne tey dañ ci bokk beneen mbir bi mooy mbokk bi nga xam ne tey je pense que tey war nañu mën a jokkalante mbokk muy Parcelles Assainies euh, loolu waral na tey je pense que président Moustapha Kane seen doom la seen rakk la doomi parcelle donc tey bu lii xewee Parcelles Assainies wala benn quartier si biir Parcelles Assainies yoon la mu déplacé wu bàyyi li mu jàppoon lépp ñëw fekk si leen bokk ak yéen bi parce que nag nit ki dañu ne euh, ku ko tuutal ku tuutal bésam rek dañ ko maanaam na ko ñàkk yëpp te defe naa ni yéen seen jotaay yi ni ngeen toogee euh, damay faral di wax ni ay chaise la ñuy loué ay bâche la ñuy mais nit ñi kenn du leen loué donc fii nit ñëwee am dañu lu toll nii organisation bu taal ni macha allah te vraiment dañ leen di félicité di leen félicité di leen encouragé yoon bi nga xam moom ngeen taxaw ci si liggéey yal na leen ko suñu borom fayal boppam euh, li nga xamee ne tamit ba ñu ñëwee tamit fekk nañ ko fi muy mbirum diine ay xal yu ndaw parce que sama sëriñ wax na ko fi sànq euh, je pense que diine gi bañ koy wax ay ndaw moo tax muy wax jaamu yàlla boo koy def aussi si ndaw yi lañ ko gën a yaakaar donc bi ñu ñëwee tey si tant bi tey gis fi ndaw yi gën fi bëri gën am seen taxawaay donc loolu dañuy def lu dul. sant suñu borom bu baax a baax am si yaakaar yi tamit fu may daaneel rek mooy euh, mënu ma koo ñàkk bañ a wax seen doom ñëw na fi doomi Parcelles ñëw na fi dëkkul Géejawaay dëkkul Patte d'Oie dëkkul Cambérène Parcelles Assainies la dëkk donc bu Parcelles Assainies xewlee mu jël soldat la ànd ñu mu war a àndal ñëw fi je pense que Euh, daf leen mi ngi leen di tàllal loxo pour wax waxtaan bu weesoo fii et ngeen xam ne àddina ay nit ñooy jàppante lu bokk la lii je pense que Parcelles Assainies leneen dina fi xewaat ñu dajawaat si kuréel yu mel noonu donc je pense que euh, loolu rek laa amoon lu may wax vraiment di leen sant bu baax di leen wax nag Moustapha dama leen koy bàyyi yéen parce que yéen ñi nga xam ne dafa je pense que li ngeen fi wax sëriñ bi loolu mënu ma wax lu ko gën wees li ngeen wax lu leer la Parcelles Assainies yëpp ko teg moom moo ñu tax a moom moo ñu tax li ñuy dox ñu koy dox donc je pense que Moustapha mi ngi noonu président Moustapha Kane mi ngi noonu euh, ñu leen koy bàyyi di leen xamal ne daal ñu ngi leen di bàyyi xel itamit wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu suñu kilifa yi fekk di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru tedd bi di nuyu. kilifa ki nga xam ne moom lañu seet si tey ak waa jàpp joxe di yóbbu jàmm ñu ànd ak suñu délégation bii nga xam ni ay collaborateur ay nawle ay mbokk ay xarit moo ko composé di ay doomu dëkk bi ci Parcelles Assainies de Cambérène ñu leen di nuyu nuyu Cambérène bi yëpp di beral ngërëm ak nuyoo suñu xarit suñu rakk suñu collaborateur bu sincère bu valeureux bu am njëriñ muy Ndiogou Thiam di leen xamal ni yaa bi ngeen def ci moom jàngal ngeen def ci moom ak valeur yi ngeen def ci moom mu koy wane ci biir Parcelles ak ci biir Ndakaaru di kontaan lool ci collaboration bi nga xam ne moom la defal moom ci am yaakaar di nuyu tous seen collaborateurs ak ñi nga xam ne ay conseillers am ñu xam ne moom ku encadrement bu baax la euh, tey ñu kontaan ci jotaay boo xam ne jotaayu diine la jotaayu humanitaire la jotaayu social la te ku wax loolu yëpp xam ni politique moo koy doxal mais ban politique mooy politique sociale politique de développement une politique de développement durable te loolu culture da cee bokk diine da cee bokk société da cee bokk économie da cee te loolu suñu yonent moo ko njëkk a def comme ni ko oustaz waxee ñu koy gërëm ci xam-xam bu rafet bi di ñaan yàlla ko yàlla yokk di gërëm ñëpp nag di sargal ñëpp ci weeru tedd bi ndaxte weeru promotion la weeru barke la ñu yegg si ci jotaay bi ngir barkeelu barkeelu ci teewaay bi ci teew ndax lu baax liñ fiy wax ndax alxuraan buñ fiy jàng ndax digle bu baax buñ fiy def ñaan loolu ñu dégg ko te topp ko te jëfee ko di sant yàlla bu baax di gërëm ñëpp di beral nuyoo ak gërëm jógu jàmm ak ñu mu àndal ñëpp di leen xamal ni naw nañu leen fonk nañu leen jàpp nañu leen te ñu doomu parcelle lañu ñoo xam ne dañoo bëgg amal njëriñ parcelle di leen ci tàllal loxo di sàkku d'abord ñaan ak barke ndaxte donc bu ay way doon ñaanale te yéene suñu ay way doon lépp lu mu songu yàlla mu ñëw ci dimbali di leen xamal ni lépp luy defar réew mi ak luy defar parcelle ñëpp ci am responsabilité mu mag wala mu ndaw li ci am mooy assumé ko wala ñaan assumé te ñu ñaan yàlla yàlla yàlla may kàttan ak sago ak yëkkale bu ñu assumé de la meilleure des manières ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di lool ci jotaay bi di jéggalu ñëpp di leen baalu àq di leen baalu àq di kontaan lool lool lool mbégte ak jawaxte daal lañ fi ñëwee te alhamdulilah jotaay bi ñu demee sant nañ ci yàlla a baax ñu di gërëm di leen allah wala jërëjëf. feeg sa xel ngay dem ci rasulillah yi xel yaa dem kuréel yëpp ndax may yëpp teraanga yi yàlla jox na rasulillah rajo Mansour ne bu ngeen bëggee am ay

géej Rasulullah ngeen sotti ay xéewal da ngeen a bëgg ay may bëgg ay teraanga laaj mën suur ne la yor leen seen baat yi bu ngeen yoree seen baat da ngeen am teraanga ba doyal ci barke si Imam Muhammad سرت مكسورة ساعة قصيرة لدى المتعارف ليلى وآلاوة وقت سيرة نما حبته يوم درجة يا الله يا بركة تبارك رسول الله أكو كتب النار يا مصر muhammad rasulillah yombul barke la bu mu bëggee am barke muhammad ñu ngi lay nuyu laaj rasul ne bëggal rasulillah yi bëgg gi nga bëgg rasulillah yi ci lay yàlla defee sa barke nga am. loolu ñu effacé ko nag soxla woon lu ko waral ñàkk barke moo waral nit lu am am xam-xam sa barke amul ca du la faalam moo tax alaaji Mansuur bu ngeen bëggee barke alaaji Mansuur ne bëgg leen rasulillah bëgg gi nga bëgg rasulillah yi gi nga bëgg rasulillah yi man Mansuur ne bëgg googu moo barke te barke nag oustaz ma faari barke du jëmm waaye jëmm dum dum ñu xam ne jëmm ji barkeel fi président Mohamed mooy lépp te moom moo ñu fi tax a te ci barkeem lañuy dund ci barkeem lañuy jaamu ci barkeem lañuy yaakaar pour ëllëgee suñu pexe kon lii kenn waru koo dagg may jéglu bu baax a baax waaye nag président Moustapha Kane daf maa yónni ci rakam di xaritam tabaarkalla macha allah di koo xamante ni si na kenn rek ci président Moussa Faka mu ko def sant ak gërëm di ko jox loo xamante ni lu mu xeeb la di ñaan yàlla nag daje bi muy yàlla mu nekk suñu diggante lu daje yàlla nañ ko fi daje téeméeri ak ak sukk yu bokkul ak yéen daje di barke Seydina Mouhamed Rasulullah man nag may kontaan trop nag ci tey bi a fi ñëw ndax tabaarkalla fii sama secteur la kër Alaaji Maalik bi fa nga nekk moo jur sama borom kër kon man fii bu ma fi ñëwee dama fier fier ci ñëw ñoo kontaan ci torop torop ndax damaa fekk sama ay nit fekk sama ay bopp fekk sama ay dëkkandoo fekk sama ay nit man fii fii laa dëkk fii mooy sama cosaan tubaab tubaab

président nee na dafa dawal yéenee bu am toolam di ñàkk danaa ni taxawal ma defal lépp jërë ngeen jëf na ñëpp nekk ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaan yàlla bëgg nañu rasulillah yi ndax alaaji Mansour sëriñ Sam alaaji Mansour nee na bëgg yonent yàlla Muhammad lu barke la bëgg yonent yàlla Muhammad am kuulatu la bëgg yonent yàlla Muhammad alaaji Mansour ne rahmatullah yërmaande yàlla boo bëggee rasulillah sa njaboot yàlla daf ciy def barke ku la gën a bëgg yonent bi njabootam nekk ci jàmm ku la bu gën a bëgg yonent yàlla Muhammad njabootam yaa def ci barke waaye ku la gën a tayee ci rasulillah yi njabootam gën a tayal njabootam gën a des gannaaw te gars yi bu def gannaaw gars yi du la faay moo tax boo bëggee ñu xaaral la sama rasul ne bëgg rasulillah alayhi salaam bëgg yonent yàlla Muhammad alaaji Mansuur ne amul ku nit la boo bëggee sa alal bañ a sànq bëgg sa lépp bëgg sa bëgg sa njaboot nekk ci xel mi daal bëgg sa njaboot am barke alaaji Mansuur bëgg leen Rasulillah ma alpaytu bëgg Seydina Muhammad ma alpaytu alaaji Mansuur la bëgg Rasulillah barke la ma alpaytu

moo tax xoolal doomu aadama yow bokk sa benn boos li muy màggee. ma doon saa lay la. xoolal ma ne. noonu maa ngi bokk na benn boos li muy màggee ba tiir. ma doon saa lay la. xoolal day góor di màgg ci weer bu saxaa benn bés la koy màgg. ma doon saa lay la. xam nga léegi nag ñu dundal benn boos waaye bu saxaa daa teel a màgg. ma doon saa lay la.

أنصر bàyyi ko di ñàkk rasulillah yi. wa badaa yuhaddil bulaysa baraka. waaw waaw xam naa ko pour wax génn bi xet bu neex lay génn moo tax ñoom màkka ci lim ñaaw ñuq du ñoom màkk koo gis mu ñaaw ñuq du ñoom màkk ndax ñoom màkk rek ñu di def ci bumi ku ñaaw naka daa ko war a daa ko war a ñaaw. wa badaa yuhaddil bulaysa baraka. te nga rocc loxo sa loxo di ngay yëg xetu parfum bi moom doon màgg nga yëg seddaayu loxo bi nga xam ne mu ngi doon màgg nga yëg ci sa xol ne si naa ma xamal moo dàq ñëpp moom doon doon màgg ba doon dox ci suuf suuf su néew bëri bëri tànk du màggee ñus nga dee barkeelu ci moom bu doon dox bi tëli ma woo woo woo tëli bi muy marqué ndax ñool marqué lépp lu dox lépp lu nooy bu xot lépp lu dëgg bu ci ñool marqué tegee loxo mu nooy lépp loo xam ne fa néew bu ci ñool marqué bu gëlee loxo bu bëri moom rasulillah wala ñool marqué fekk na kopp ndox bu tuuti ci ci treize personnes yoo xam dañoo war a naan ci kopp ndox bu tuuti mënuñoo naan ñool marqué jël loxoom lu ko ci ndab la loxo yi di bas basi ak ndox di bas basi ak ndox boo fees dell bëri bu fees dell saxaba yi naan ca sangu ci seen gëlëm فليكن رسول الله وفتى Hallelujah. jëm bakkan ba daal sore am na yoo xam ne dañoo am bakkan bu wax lool tàcceel yaatu lool rëy waaye wàllu màkk bakkan ba dafa sore nga gis leer bi connecté wu di génne ca bakkan la ñu am màkk ya. rëyu dafay wax moom Sidna Muhammad ngelaw lay génne ci génne nga dàq lépp lii parfum bu neex takk sa waay gémmiñ wa fadailuhum jalla falaysa duwaana xool demee li ma wax de du ay lépp du ay lépp war wasal du ay lépp dafa am cinq jigéen yoo xam ne ñoo kasaw gémmiñ mu sos aadama ba ñu kasaw gémmiñ ji rek ndaw ngir kasaw ku ñu kasaw gémmiñ loolu moom doo ko nekk ci li tàmba daa boobu jigéen ñi bu ñu wax seen borom jigéen ñi dañuy dañuy gis gars yi ndax ñu dina dem looloo lu la baal ba xetu gémmiñ gi ñëw ndax feebar docteur bu ne dem leen fa ñu bindee leen ay ordonnance mu ñoo ñu daw ñëw ci sang yi ne ko ñoo noppi ci jàmm ñu nëf mu ay jullit waaye suñu gémmiñ daa ko sama kese bu suñu dajee sax buñ demee kenn mën a wax ñun ngir suñu xetu gémmiñ te yow kat yow la yàlla yónni loo ñaan yàlla def ko ñu bëgg rek suñu xetu gémmiñ nga dindi ko loolu maa xool dama ne mën naa koo dindi dafa ay ci condition ngeen doon. jigéen na bu fekkee loolu rek na danañ dugg ci diine islam mais suñu katu géej ma moo ñu yàqal lépp góor bu li ko def rek sax waxal ñu naari fan ñu jegeen te katu géej ma gën dootuñ ñëwaat am na nga xam loolu lañ bàmbar daa góor gu ñu jegee ba dafa bés nga sax dama am na amoo ko de xoolaa dafa bopp jigéen yi na ko ku ñu bëgg ci bis pour war a loolu naa am mu bàyyi ñu ngir suñu katu gémmee ñoom naa ko mën naa koo dindi ñoom naa ko woo Sayyidatuna Aysa Sayyidatuna Aysa ñëw ñoom naa ko dama ca war a boole indil ma benn seenu yàq benn dama ci yàq Aysa indil ko Rasulullah Rasulullah da ko ca gémmee bi di ko sàkkal sàkkal mu rafet lool mu koy sàkkal ba yàq woon mooy Sayyiduna Muhammad roccee ko ci gémmiñam jox ko benn jigéen di da ko sexal jigéen bi sax da ko sàkkal ni jigéen bi sàkkal mu ne ko dindil jigéen ñi dindi mu ne ko waxal jigéen ñoo xeetu parfum ba neex lool jigéen ñi jigéen ñi mu ne ko génn waati mu jox ko benn ndaw si ndaw si sàqal mi sàqal naa comme yow mii yësee nga sàqal mi sàqal naa mu sabaana ko dindil mu dindi la ko waxal kati parfum ndaw sa di neex lool ba juróomi man gis nga juróomi jigéen ñooñu ay nit dañ doon bëgg sax ñuy wax ngir seen xetu gémmeñ bu neex seen xetu daa dese woon ba ñëpp di leen daw waaye fi ne ñoom màkk bind na seen xetu gémmeñ ba ñëpp di leen jege ñoom màkk moo dàq ñëpp parfum doxal yaa leen kon luy waaj a taaw taaw normalement que moo la gën a rafet lu waaj a góor yi waaj silvise silvise sidna Muhammad alayhi salaatu wa salaam moo la gën a rafet. yaa rabbal aalamiin ku soog taay Fatou ba ci biir ndox mi amul kër suuf maam Cheikh Al Jilaani yaakaar naa borom Tuubaa soppee seen sëñ la xaajal maa ne lii soo ko mën a wax Mustafa rek balak balak balak أنت من الله والمصطفى الجلوس بين يديك والنظر إليك وإنفاق ما علي عليك وبلاء الجنة حتى xoolal am nga jabar Moustapha xam nga lu ma bëgg toog rek jàkkaarloo ak yow di la xool di la xool di la xool di la xool ba gën a ci jot te Moustapha sax su ma lay xool mu mën a nelaw ndax li mu yor bii fonatul ci yow dugg ci sama gër bu maa ngi ak sa taar Aboubacar Moustapha bëgg naa la xoolal jàkkaar nga ne may neex toog ak yow sa yar sa dal neex na ma Moustapha akbar moo nekk war nga ilayka di xool sa kanam taar di xool sa sa rafetaay Moustapha da koy xool Moustapha di gën a rafet nga xool ko Moustapha di gën a jekk mu Sayyidina Muhammad moo da ngay nekk Moustapha cinq mille nga dem nam xam ne dafa toog Moustapha toog Moustapha du xool yonent bi di ko xool ba ci yàlla yonent nag maa baalu ko mu bëgg lan mooy xoolee ni mooy xoolee rëy la waaye dama bëgg la waaye li ma jaaxal mooy lenn rek moo ma jaaxal ay Moustapha xam naa ne yow maa am am lenn nga ñëpp bu ko yàlla dugal yi bu ko dugal ak la xam naa am ak yow ñu am benn appartement te su safaara fa aluma maamu ahab gis nga boo bëggee ñoom màkk yaa ñoom màkk yi ànd dugg àjjana boo bëggee ki nga xam ne day ci daawu dafa mar mbaa toog ñu naan boobu mar léegi yooyu ngay resté woon fu mu dugg ànd ak moom ngay moo tax suñ bëgg bëggal ku Abubakar wa Umu Saba toog ca sa kanam di la xool di xool sa kanam aussi ñoo ko xam ne waaye di sa alal la ko jox moom gën a lépp yow Rasulillah gis nga ngeen gën a ci yàlla ci taaru Moustapha càppal Moustapha wiiri wiiri jaari daari jaari mooy xam ne sëpp jëba jëba takk suuf mu ñëw sàcc jumaay jaari bàyyi ko nag maa lu wax ci rasulullah ana kanaa sopp leen bàyyi ba seen baax lam yaqbil dalmata Muhammadin lam yaqbil dalmata Muhammadin eh, maa ngi sëriñ Moustapha Mbàkke moo dugg ci jiw yi ñu koy wax rasulullah

dafa xaram ci jigéen ñu dóor ko baaxee lu dafa xaram ci jigéen ñu dóor ko njëkk man maa ko ñëw fekk mu ñagas lool Serigne Touba yi loolu maa ko tàndal ko ba mu tàndal Serigne Touba yi loolu maa ko ñu a Pape jërëjëf Serigne Mbacke Rasulullah di kàtt di tas jigéen ñu baax yi. di jaamu ay estati Seydina Muhammad ñoo faar lépp moo tax kon Sëriñ Tuubaa yi Rasulullahi moo fi faar kéeféer moo fi tàllal boobu lislaam yowatu billahi rabbil man Sëriñ Tuubaa yi xoolal ci biir waaxi moo di ne fànn na li ci biir lu kenn xamul kenn du mel ni doomu Abdoulaye adaaru lillahi fi kulli zaman Sëriñ Tuubaa yi xool Sëriñ Tuubaa yi Seydina yàlla daf ko indi ci jamono ju ne muy régler problème yi xam nga problème mu kër yi Seydina Mouhamed di gaaw problème mu néegu sëy yi fan yu tas yi Seydina Mouhamed di gaaw bi ngeen bëggee am problème bu réglé da ngay daw dem ci njàngale Rasulullah xam nga Seydina Mouhamed am na biir boo xam ne xeex na cent ans yoo xam ne ñu ngi xeex waaye kenn Seydina Mouhamed ñëwee jekkaay ba taar ba def na daje dama xam ne ñoom problème ba jeex moo tax Serigne Touba ne problème yi problème mu famille yeeg problème mu kër yi problème mu mbedd yi mais problème mu nekk sëy Seydina Mouhamed Sëriñ Tuubaa Rasulullah ci gaa boo bëggee sa problème rek léewu demal ci Rasulullah xidmata Sëriñ Tuubaa boobu Sëriñ Tuubaa ñax dana la ñax dana la kon su sëriñ ñax dana de bokkul ci kon Sëriñ Tuubaa ne dem doon màgg moo tax mu ñu faral naan baatu xidma xidma ñu ko jëlee ci seen sëriñ ndax seen sëriñ la toog gaal ngay daw bu jëm garoo gaal ngay daw bu jël goboo yàlla yónni yàlla xamal si ndaw xam xamal seen subaa nag yaa ngay dem de yaa ngay dem waaye yaay bindaalu ak suñu daay ndax alama ni rahmaanu fii safina bi ànd ni xadimu silmarina Sëriñ Tuubaa ne yàlla xamal na man may liggéeyal ñoon Màkka di ko liggéeyal ba weer dee mënal ma am fay mënal ko am mënal ko rasuul soxlu ma fay sa ngërmaane laa bëgg am na mi naan yoo xam ne boo leen liggéeyal ba la seen ko mën fay ñu commencé ñàngal boo waxee ñu diisal seen baax boo leen sant ñu yëpp mooy Sëriñ Tuubaa ne rasulillahi dama lay liggéeyal di la liggéeyal ba weer dee mën na soxlu ma fay ñeen laa boo jiyee ci suuf soo sax mu sax ngir ëmb ñoom nag garab yi nga xam ne duñ doon am leen ngantal keroog ba ñu amee ñoom maaka da doon meññ lépp loo xam dafa woo keroog ba ñu amee ñoom maaka dafa tàggat ngir amu ñoom maaka ñoom maaka keroog nga xam ne amu leen ko moom sallallahu alayhi wa sallam da ngay dégg kàddu gi yuuxu naanaan atiroo baqiroo jërëjëf xayal boxóor yi wa xam ne su sa jaadaan takrima al aqsami xool ñoom maaka dañ koo mu Cheikh El Hadj Malick bàyyi El Hadj Mansour bàyyi Serigne Babacar bàyyi El Hadj Abdou Aziz Dabakh bàyyi Serigne Habib Si moo tax ne ñoom maaka keroog bañ ko ëmb dañoo dégg li yoon ana atiroo baqiroo خير البقول وحبس سجارات تكي مع الأخذ العتر وفاق ولا بخيروا من تراي خير البقول من تراي وحبس سجارات تكي مع القسم يدك بين جار قبل جار بين جار دي يوخو يوختكوا نعم رب الكار محمد بمحمد أبجع الله نعم نعم بنتي يا الله من قوة الكوكب kale kaw ba kawu kàrkari ba daal suñu kaw yàlla lu taal si moom la ñuy def maa ngi gis ci yàlla ñu borom kàddu gis naa ne tey ëmb na yonent bi gars yi dégg kàddu boobu di dégg kàddu boobu dox ba ci yàgg dugg ci ron aadama ñu fekk ko ci ron ron aadama benn jàll mu ngi yuuxu du tudd doon màkk am bu ñu doon màkk kenn Seydina Muhammad doon màkk ñu am ko gëlëm ngay yuufi di xamal ne Seydina Muhammad ko mu ne ko tasalsala ustuwaana ko wala kii ka ka kaabati salaasa ayyaamin fa lam ñoom màkk dañ ko ëmb ba mu juddoo ñoom kaaba da naan jayi jayi góor droit trois jours kaaba da naan jayi góos di jayi droit di jayi góos di jayi droit ngir ëmb ngir judd ñu doon màkk ñoom màkk dañ ko ëmb ba mu juddoo moom doon màkk Quraysh amoon na leket boo xam ne ku tudd leen la koy def ko fanaanoo la ko ne leket bi moo di aar waaye keroog ba ñu am benn normal dañoo jékki-jékki. dem doon màkk dugal ko ca legeen bi legeen bi ne taxaw aar nga tax doon màkk kenn du ko aar subhanahu wa taala moo koy aar kër bu ñu ëmbee doon màkk 313 mu ca kaaba gi waaye kër bu ñu ëmbee doon màkk xëram yi dañ doon daalu xëram yi doon umb ngir ëmb gi ñu ëmb doon màkk moo tax luy waaj a baax luy waaj lay taarix luy waaj lay histoire doon màkk aar bi gën a rëy alxaji maa ngi nekkoon keroog ba ñu ëmbee doon màkk dañ lay wax ne la leen si jaar yi ngeen teral kan doon màkk moo tax ku teral doon màkk yàlla teral na ku fonk doon màkk yàlla fonk ñu ko alxaji maa ngi ñoom ñu donc rasulullahi xam si na Muhammad ba mu ni Muhammad ba mu leeru yàlla ba mu duggee ni Muhammad jugee fa doomu Abdoulaye laaj jël la maa ngi si na Muhammad ña ne jël la alxaji man la jàppal Muhammad Abdoulaye ko dul Abdoulaye Seyba ko dul Seyba Hasi moo ko dul Hasi Abdou Manaf moo ko dul Abdou Manaf Xusey moo ko dul Xusey Kira moo ko dul ku ne Moura moo ko dul Moura lu waay moo ko dul lu waay jotaay moo ko dul xaar fii moo ko dul fii maay maay naa la nawet ki naa la ki naa Xusey Xusey moo dégg moo dégg Iliya Iliya moo dégg Moussa Moussa ah man man ah misaal la al am am naam la ma ñu jaay su am naam fa teg si boo xam jaar nga ni ko bàyyi sëñ Babacar waxal Mouhamadou Abdoulaye salibata hasim abdi manan xusey kirab muraka looy xaali fihi malik lana kenaan xusey mudrika muraka ya mani jaay abna ba taksibo qad jaa min alami ñu ne ko sidna Mouhamad alhaji Malik yaa toog rasulullahi yaa waxal looy bëgg a xam ci sidna Mouhamad la la fekk jagsaaw war ko fekk rek waaw ñëw ne ci waaw war a jagsaaw wax ñu kan la sidna Mouhamad sidna Mouhamad kañ la nekk leer mu ne alhaji Malik ne rasulullahi nekk na leer di sàmbal borom kiiraay mu ne kiiraay sidna ko xamal nekk fa bii junne fukki junne at ak ñaar bii fukki junne at ak ñaar bii fukki junne at ak benn bii fukki junne at kese bii juróom-ñeenti junne at bii juróom-ñeenti junne at bii juróom-ñaar junne at bii juróom-benn junne at bii juróom junne at bii juróom-ñaar bii ñeenti junne at bii ñett ñett ñaar benn alxames mooy waxu lay génn. kenn du la góobee kenn du la ñaareel kenn mënu la jëm pour mu Jangan menolak kekuatan dan rasa Senhor.

لك معجزات أعجز كل paysans yoo xam ne ah desal waxtu woon ak kuréel wala pour ay bii mbindeef doon màgg la ko yàlla jox waxtu woon ak. la ko moo di saa pour ay yëpp kuréel wala wala wala màgg kéemtaan yëpp ñun kéemtaan yàlla wax na ko ñoom màgg. la ko moo di saa pour ay yëpp kuréel wala. li waa ji def ci kéemtaan yàlla da koo jël seen am caam da ko ñoom màgg. la ko moo di saa pour ay yëpp kuréel wala. mooy koo xam ne daal di ci àll bi ñoo ko ci tëj kër si maam xam ne wàcc bi ne ma ñoo ciy jàpp di la kii yéen a toog fii kan lañ ma xamal. wa taxu jisaatu haajata kulli wala wala. bu ma gàmm ne ko man ci kanaa gisoo di fi daax ak kanaa gisoo di fi gën a rafet kanaa gisoo di fi gën a rafet yéen waaye ma ko yow yaay ma xamal ñu ne si ne ko maay ma xamal ñu ne bu dee bon yaay ma xamal. wa taxu jisaatu haajata kii mooy doomu Makka maa ngi seede ne kii mooy doomu Abdoulaye maa ngi seede ne kii mooy doomu Amina bi wa qawmun kuffaarun laa takun Woo! buntu bay benn pax bu yaatu am ba kër gudd na ko ñoom màcc ba la jaaru bu xaaral ma dugg ba ñuy fi pax yi fekkee am na jaar luy lay mu rey ma am ba kër gudd jël ay yéreem xotti taf ci pax yëpp ba mu des benn pax nekk na pax mu jaar bu mag jaar boo xam ne jaar boo xam ne ba mu fa nekkee léegi mën na junne yàq am ba nga jël tànkam te te paxu jaar ja jaar di yëg ne sidna Muhammad xetam dugg na fi jaar di génn day ziyaar yonent bi Abubakar ko mu doo génn mu pës jaar bi puus Aboubacar gën a dëgër tànkam jaar di màtt Aboubacar daganteri yéeg Aboubacar daganteri yéeg Aboubacar ba Aboubacar ñàkk ñàkk woo rot ci kaw amul Seydina Mouhamed Seydina Mouhamed yow nag Aboubacar lan la ñëw na Aboubacar Seydina nag Aboubacar teggi sa tànk Aboubacar teggi tànkam mu benn jaar yónnee ci lu xool jaar bi na ko jaar bi yow lan moo tax nga màtt kii jaar di na ko loolu màtt damaa tase yónnee ci yàlla Isa laaj ko kañ ngay ñëw yonent bi ñëw ci jamono fan lay wàcc mu xamal na màkk lay wàcc mu xamal na ma ne ma sa jàpp barab bi junne at a ngi nii maa ngi ci barab bi di la xaar keroog bi ma yëg bi ma yëgee sa jàpp ne yaa ci biir baat yaa ci biir kàmb gi ma génn pour ma laaj si yàlla am na ko kii nekk ma waaye màtt ma ko pour sobal màtt ma ko pour dara dama ko màtt pour ziar Thank you. rasulullah yi wax nañu maa ko lekk mu ne maa fi dundee ak yónent ci nag soo bëggoon lekk lay wax danaa ko sopp rasulullah yi yàlla la yàlla sopp ma jékki-jékki sama biir fees del lekk mu ne ko boo bëggee naa koy wax mu ne ko ku bëgg Abu Bakar yàlla yàlla bëgg sama biir fees del lekk rasulullah yi xam nga ki nga mu ne ko déet mu ne ko mooy Abu Bakar jaar ci kàddu daal ba génn àddina dagal bi yëpp dana ji yëpp Aboubacar yonent yàlla Muhammad jël loxoom teg ca bopp Aboubacar commencé moo ci yonent commencé moo ci Aboubacar di ko moytu ba dagar ñu jaar dem wàcc Sayyidina Muhammad mooy fekk nu waay maan rab màtt ñu naan tey mu dee yonent yàlla Muhammad teg ca loxoom dagar ñu wàcc ba ko war a am daf koo ñeel ay kéemtaan ay mu'jizaat min Rasulillah xaritam rek soppeem nga te soppe nag ñu seede ci kon soppe lu ko neex lay wax kon amul soxla ma sa seede. la kooku di zaatu ajabatum la yaa. ku nekk wax ku nekk wax waa ñu ne yéen bële ma xool ko kenn laa soxla wax mu ma yéene tuba bi dee xool si ñoom xam ne ko man la xool ko baax jàkkaarloo moom naka man nga yaa waaj na ko bala maa gëm bala maa gëm ne yow yàlla yow la yàlla yónni ci jaam bi bala maa gëm ne yaay Muhammad ibn Abdullah dafay ay preuve te waroo gëm a preuve bi wane ne yaay yaay yonent Yàlla Muhammad Seydina Muhammad sëgg ci suuf ñàkk lay yoroon naan taw waaw waaw mel na taw mel ni woro Jibril asamaan juróom-ñaar fekk fa Seydina Muhammad sëgg mu fëgg fëggal yonent bi na ko yàlla ngay nuyu sa waajal ngay nuyu sa soppe ba mu ngi lay nuyu yàlla nee na arab bi kaw kaw bi li muy laaj dafa am benn xeer boo xam ne ci biir poosam xeer woowu biir xeer bi sa tur ma fa gis nga xeer woowu mooy seere na yow yàllaa la yónni si la ma xam ne gëstoo siggi xool waa ji nag sa poos am na xeer wu fa ne xeer woo génn ko waa ji génn xeer bi si la ma xam ne téye xeer te ndey jorom xool ko nga ko xëy wi mooy seey na man yàllaa ma yónni ndax ci biir xëy bi ñu ci bind sama tur xëy wi naan ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi maa ngi seey na yàllaa la maa ngi seey na yàlla kenn la waaye maa ngi seey na yow njool maa ko yàllaa la yónni moom rasulillahi alayhi salaam laqad ujizaatu ajabat wara tabaarakallahu sangi bi kon ñeel nga ko daal ay ay mujiza ay kéemtaan Muhammad su turandoor ñu tudd yonent bi nag nañu am xam ne am nañ la sa base waaw tudd yonent am nañ ko bu baax moo tax sama benn waaye naan man Muhammad laa ko ma neex ko mooy dee dem bala ngaa dee na ko ndax ku tudd Muhammad ko laaj ne say base moo tax yow mi tuddee sa doom yonent bi wala nga sa kooku tudd Muhammad wala mu tudd Ahmed wala mu tudd Moustapha ëllëg yowmal xiyaam lii la sa paasem mooy tur wa falaa yu xaasil xadda falaa yu xaasil jalilu xadda man ismoo falaa yu xaasil falaa yu xaasil falaa yu xaasil jalilu jeex na sëriñ mi nee na yàlla xool way ko def la yàlla du réglé ki nga xam ne turam Mouhamed ak tur wala Ahmed kon nañu am yaakaar ne ñun ñëpp am nañu teraanga yal na yàlla soppaloo yonent bi alayhi salaam di leen ñaanal jàmm ci toogaay bi nga xam ne toog ngeen ko sonn ngeen lool waaye toogaay yi mbégte la toonaay yi mbégte la ci barke yonent bi jotaay bi yàlla bu nekk suñu mbëggantalu jotaay ci barke Sayyidina Muhammad alayhi salaam yàlla xam na ne man sang bi restu femme la jógee waaye tey njóogu dafa foor lool ci ñun nekk suñu nit nekk suñu soppee nekk suñu xariyaatu lool yàlla dogal xaaji Basir mii wala man moom ba conférence bi ñu fi des daaw jéggi la corona bi wala Covid bi ñëw kàll ñu porte ñu ba mënuñoo def dara waaye fa lillahi alhamdu fa yaa lillaatee loolu yëpp ñooñu nekk suñu soppe nekk suñu xarit xam boppam lool moom safa bu xoolee ne man arafa nafsu wa arafa rabbuhu ku xam sa bopp rek xam ku xam sa bopp rek xam yàlla te loolu la ñu gis ci moom ak ñi nga xam ne moom la ko yàlla boole. mooy ustaas am na caam nii ustaas la daa zaahira rek nag di sol ay diir waaye ustaas la ndax ca daara ja ca kaw la tabaarakallah ñoo ko bokk di nekk waaw mi borom xam-xam tabaarakallah ñu koy ziar bu baax aji aussi suñu rakk la suñu xarit suñu sopp seen kër daaw bu mag ñoo koy def waaye man ustaas Mouhamed Ndiaye sopp na bi maa koy wax saa ba set kon tabaarakallah aji aussi ñu ngi lay ziar ak borom kii bi borom si Pape Malick ñu ngi lay ziar bu baax ak borom sëriñ sëriñ Basir borom ñu ngi ñu koy ziar baax ak Pape Mbaye moom fu nekk lay ko day mësit la ñu koy ziar baax macha allah di am mbégte waaye tamit tabaarakallaa wax ni suñu xarit suñu sëriñ Adama Sène nga xam ne moom mooy li nga xam daf ñoo boole ca daara ja donc dama doon ne ba mu baax ca daara ja kii maanaam surtout maanaam ki ko xaddamal mooy sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu bëri na borom xam-xam yi wax ci cere bi ñu jox ci keneen rek oustaz Pape Anne mooy maamam nijaay kii moo ko jàngal Oustaz Dame Ndiaye mu nekk mooy DSS ki ko jàngal ma kii maamam bu xadamu Serigne Babacar ba jamono ji bari na ñu dëkk Tiwaawan di fa jaar di fa jàngi xalifa bi rek doomam Serigne euh, Lamine Sy ñu jaay kii moo ko jàngal tabaarakallah suñu Serigne tam mu tabax nit te daara yi ba lool mu tabax nit bu baax am saa day beeg lépp ba nekk fa tabaarakallah nekk seex lii di fi nag waaw di noos su ma bëggee bañ a jàng damay tëj néeg ba rek suñu dem jaay àll ba ma jàng rang bu ne defal nañu daan na jël yëreem sax booba booba nag dañoo sonnoon amuñu xaalis waaye fi am nañ xaalis ñëpp xam ñëpp xam ndax fii naa ko xamante ñuy teral waaw yeneen ci daal ñuy teral waxuma ko ngeen koo gëwale wa amaa bi ñaa ma jox bi ko fa xadis yi yàlla nañ si loo xam teraan yi mën a defal waxtaanee ko kon tabaarakallaahu li ñu def nañu si ñun jàppale ñu ci côté bu ne ay projet raam ca kaw la ñun ñoo mën a waxtaan daayira yéen mën a am kaw la yëpp man oustaz Mouhamed Ndiaye su ma ñëwee oustaz bu mu rëy rëy na fa sax Iran daw ñëw sax ci sama gannaaree toog kii moom. ba yàlla doon ba léegi ñu ñëwee ba léegi ñooy ànd fu ñu dem tabaarakallaa ñooy ànd ñu war a am fu ñu war a dem kon daal tabaarakallaa am nañu mbégte am nañu kontaante xaj euh, ñoom am nañu mbégte wallaay am nañu mbégte ndax bés na lool mu fekk lu mu mën a jàpp lu mu rëy rëy rëy dina ko bàyyi ndax dañ ñu jaral ndax nit rek wolof day faral di wax ne soo doon nit xoomu lu ma koy def lam lay def moo tax yëg-yëg ba cofeel nga tabaarakallaahu amul amul fay yëpp ñoom cofeel bi nga am ci ñoom yàlla yàlla barkeel ci barke Yonent bi alayhi salaam xam nga am na ñu ngi lay ziar baax di lay sant ñaanal tabaarakallaahu waaw da nga koy jël sa yoon bokk sant la il faut nga sant la xam nga maa ngi lay ziar baax di la ndokkeel di la ñaanal yàlla yokk sa wér suñu mag la suñu xarit nga suñu suñu sopp suñu soppe nga yow sa jotaay day neex may faral di wax ñoom Ndiob ne ko moo xam ne dangay war bàyyi ba weer dee ngeen fay ko ndax stress bi may dindi kon su ma fa yegg damay ree ree mën na ko maa mën maa sonn nag maa woo su ma wooyee damay ree sama dëri bi ñu ñooy jàppalante kon nag jàppal ma rek ba ma dox kon tabaarakallaahu di bàyyi ma tudd rek ci kàddu gi fii di ñaanal ñëpp jàmm Aliou Ndiob nee na mu sant la bu baax su ba tey yaa ngi def sa sañ sa bu jekk nag sañ sa nga de

sañ sa nga lool tabaarakallaahu jekk na Muhammad ñoomu kontaan na ci yow ak ñi nga xam ne ñoom la ànd ñëpp ñu ngi lay kontaanee di la ñaanal yàlla ba mucc ci tàpp comme ni maa ko ci tabaski tabaski yonent bi alxaaji góor ñu ngi lay ziar yow ci bu baax yàlla yàlla bakkeel ci barke si noonu xam naa ne waaw soxna Bintu moom suñu jigéen la mu ngi ree rek ndeysaan waaw fii jàmm waaw moom tabaarakallaahu moom ñëw na ñëw na tabaarakallaahu ñu ngi lay ziar soxna Bintu bu baax di la ñaanal laaju doon ñu ngi leen siyaar baax di ñaanal góor ñi fi teew ñëpp yéen góor ñi yàlla defal leen barke yéen jigéen ñi yàlla defal leen barke yàlla defal leen sutura defal leen sutura ngeen am jàmm may am jàmm ci barke euh, maman suñu yaay ñu ngi leen siyaar yow bu baax di la siyaar di la ñaanal dëgg yàlla yaa du neex yaayoo nga ndax ku béeku nga suñ la fekkee place ba sa yaatute ak sa mbaax rek la ñuy gis kon ñu ngi lay ziar baax di la ñaanal baax ak sa doom ndaama xaw ma kañ lay doom nag waaye war naa doom ñu ngi koy ziar baax Salam Vision nag télé bi nga xam ne foofu laa ne du fa toj maa ngi la ñuy ziar bu baax mooy muy sëriñ Sam Seck di wax ne na ñëpp dem tabaarakallaahu dem fa dem fa fekk ay émission yu doy waar dafay waxtaane sama turandoo di Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam sëñ Sam amul nu mbégte sëñ Sam am nañu kontaan yàlla yàlla barkeel ci barke yonent bi alayhi salaam yàlla sàmm mi nga xam ne moom nga ànd yàlla sàmm leen biir ak béti ci barke rasulillah alayhi salaam ngeen am jàmm may am jàmm ngeen am sutura am sutura am na ñoo xam ne yaa ko war a wax am na yoo xam ne kaay yaa ko war a wax tabaarakallaahu ngeen am jàmm may am jàmm ku nekk nga dend ndax ko loxo nag félicitation ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngeen am jàmm may am jàmm ci barke Seydina Muhammad waaw daayira Parcelles Assainies Unité neuf aussi ñu ngi leen ci sant daayira daayira Parcelles Assainies Unité neuf ñu ngi leen di sant ñu ngi leen invité d'honneur édition bii nii ña nga laay ñu ngi lay siyaare wér a wér rama Ramo VIP sañse ñu ngi lay siyaare ñu ngi siyaare Anta. bu dul woon yow suñuy xëli lu baax de bu dul woon moom suñuy xëli lu baax ñu ngi siyaare góora moom mooy sama kilifa yaa ngi leen ma góora may da bëgg ñëpp tàggul ko ko góora sama kilifa la sama conseiller la suba ba tey mi ngi fi jàpp ci affaire yi ñu bokk di liggéey te amaana sax xaalisam sax xaalisam lu mu bëri bëri bëri sax maa koy gérer te loolu boobu di liggéey muy confiance boo xamante ne daf ko teg ci man duure maa ngi lay siyaare père Mouhamed moom aw ma ci moom fay père Mouhamed Ndiaye benn sama mbokk la ba pare sunu lépp la daal bind yooyu du ma la sant ndax si association bi nga bokk Mouhamed yow aw ma sax lu ma la mën a wax ndax mi ngi nii li fi nekk nii yëpp amul amul doom bi nga fay yàlla xam na ko. amul dërëm bu nga fay Mouhamed kon dañ lay bàyyi yàlla yaa sëñ Adama dañ lay bàyyi <laughs> dañ lay bàyyi yàlla yaa sëñ Adama fay yàlla ñëw si yéen yéen lan moom tamit maa ngi yor xamante ne après lay doon waaw te sëñ da ngay yàggeelu li waaw waa jaam jafe yéen tamit dama leen sant liwaas le missionnaire day maamu xaw nañ jaabate mais noonu la affaire day métti day métti après mu neex wala wala vert bi nga soo jigéen ñi sama élève yi jug leen taxaw taaj seen bopp wax dëgg yàlla jug leen taxaw taaj seen bopp samay élève lañ teewul bis bi dañu bis bi suñu gisu bopp la ñun ñooy ñëw soo ba tey togg buñ mën ci togg organisation bi ñoom ñoo si nekk waa café gi naa leen bëgg naa leen waaw li mooy àdduna li mooy àdduna ah moo gars yi élèves yi yéen si ngeen boobu bàyyi boobu waaw walaay maa leen di siyaar yéen ñëpp waaw élèves yi jàpp nañu monsieur Diatta monsieur Diatta aussi maa ngi ñaan ñëpp taatil ma ko bu nekk doyen école bi ñu ñëwee moom moo ñu jugee wan ñu yor wan ñu si ñu war a aw dégg ñu si yor dafay ñaanul na ma seede jaay amul école bu dul jugee classe dem si monsieur Diatta laaj ko lii wala la muy bu yaa ko xool suy ba tey mi ngi si monsieur Diagne yàlla na yàlla fay man leen jaay tey même comme ñu souhaité ko happy birthday tey laa dafay seeraw kon naka ñëpp waay doo. man ma leen jaay di nga taxaw ñëpp. waaw ñu ngi ñu ngi siyaare aussi chef de quartier bi vraiment bàyyi li. yombalal nañu mbir yi conseiller nañu war nañu yor waxtaan na ak ñun tamit ñu ngi lay bàyyi Ilimane Seck amuñu sa fay ki nga représenté di ñangalaay bàyyi Ilimane Seck amuñu fayam réunion benn dafa am réunion chef de quartier moo tax teewul tey tey dafa doon nekk bis yoo bu bëri programme mais ñi ngi sant ñëpp ñu fi teew ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. sa Bambey da ngay barkeelu sëñ Bintu. waa père nu mu sant. bi ñu waxee café gi moom moo di moom sasoo café gi. père. monsieur père Mbaye. Mbaye père. ñu ngi lay siyaare wér wér. borom fu lay rafet yi borom lépp borom tur bi rafet yi yàlla na yàlla fay moom moo sasoo kafe gi kafe gi di gis nii bi ñu xëyee dafa ñëw sasoo ko def leen yàlla na yàlla fay weer ibu ibu moom moo sasoo mburu yi ibu ibu ñu ngi lay sant bu baax a baax ibu boo mën di nekk di sant waa koñ bi ñi ñëwoon ñi ñëwul ñi ngi sant ñëpp di leen wax ni jàpp joxe yéen la fi nekkal yéen la fi nekkal ok sëñ Ba Seye du ma la sant du ma la sant ñi ngi sant aussi Atta Atta ñi ngeen sant bu baax a baax a baax yéen a ngi yombalal courant bi ndax bi ñu ñëwee tey dañoo ñu ñu financé leen amul benn problème ñi ngeen sant di ngeen ko def Seydina Mouhamed yàlla na leen koy yàlla fay ak Seydina Mouhamed Atta yàlla na yàlla fay waaw tons donc tamit ñu ngi koy gërëm moom tamit lu ñu dugg mi ngi ci dara di gërëm aussi monsieur Ndiaye. monsieur Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax a baax di ko ñaan ki ñaan ma jóg toog saa ma nga toog lu wax sant <laughs> moom xam na lépp sëñ Mouhamed maa ngi dolliwaat di la sant bu baax a